asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi lay nuyu bu baax di leen nuyu ci turu Serigne Moustapha Massamba mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Massamba te jëwrinam teewal ko fi Serigne Mamour Mbacke mi di la gërëm bu baax a baax. ne di la gërëm bu baax a baax. di gën a feddali ak taalibeem. bu baax a baax ne di gën a feddali ak taalibeem bu baax a baax. di. bégee itam saw nee na di bégee saw doxin. ndax doxin wi lépp lislaam la. nee na doxin wi lépp lislaam la. lépp taalibe gu ñu nang gu saadix la. nee doxin wi lépp taalibe saadix la. nee na loolu kon mi ngi ciy sant yàlla bu baax. nee na loolu kon Serigne Moustapha nee na mi ngi ci sant yàlla bu baax. xelam dal na bu baax a baax. nee it xelam dal na bu baax. xelu njaboot gi dal na bu baax a xelum njaboot gi it dal na bu baax. ndax boo boo toppee ci koo xam ne ne boo toppee ci koo xam ni mu ngi tege ci yoon ba mi ngi tege ca yoon wa di ca teg nit ñi di ca teg nit ñi nga ànd ca biir mbooloo moomee nga ànd ca biir mbooloo moomu wóor na la ne ne na la di bu àggee da boo àgg bu àggee da nga àgg ngay sëriñ Touba ngay sëriñ Touba te mate ko sëkk te mate ko sëkk bi nga toogee ne bi nga toogee li nga njëkk jël ci taxawaay li nga njëkk jël ci taxawaay xamal nanu ne xamal nanu ni fa fii nga ko teg rek foofu fii nga ko teg rek la ndax mooy mooy mooy mooy jàng. mooy jàng. xam xam. ak tarbiyewu ak tarbiyewu. foofu nga teg sa sa sa sa mission bii nga nekk. nee na loolu mooy mission bii nga nekk. def fi daara joo xam ne. nee def fi nag daara joo xam ni. nangami te nangami nangami nangami milliard. nee na nangami milliard la. yu bëree bari yu bëree bëree bari ñu def ko ci defin woo xam ne. nee ñu def ko ci defin woo xam ne wu gaaw la wu gaaw la. wu tege ciw yoon la wu ciw yoon la. wu ànd ak pasteef la wu ànd la. li nga ciy def def nga ko lépp ba mu mat. nee li nga ciy def def nga ko lépp ba mu mat. taalibe yi nga xam ne. nee taalibe yi nga xam ni. ñoo coobarewu. ñoo coobarewu. liggéey fa. liggéey fa ñoom itam. ñoom itam. lañ ci man lépp def nañ ko lañ def nañ ko. Mbay Sarr mais mooy seen njiit. nee na Mbay Sarr male mooy seen njiit. noonu la ame taxawaay fii itam nag. nee noonu la amee taxawaay fii. loxo ma ngi ci lépp. ne loxo ma ngi ci lépp. ne beneen ba ca des. ne beneen nag ba ca des. ñi nga xam ne. ñi nga xam ni. ñoo coobare wu liggéey fa. ñee ñoo coobare wu liggéey fa. liggéey bi moom it sori na lool. nee liggéey ba it sori na lool. kenn ku ne. kenn ku nekk. da ngay jàpp ne. da ngay jàpp ni. liggéey bi liggéey bi nangami at la liggéey bi nangam liggéey bi nangami at la. waaye nag fekk. waaye fekk. Pastef yaa toll noonu Pastef ya moo toll noonu. waaye waaye yàggewul noonu waaye yàggewul noonu. sëñ bi sa sa boobu. ne sa mébét boobu. ak sa naal yooyu. ak sa naal yooyu. yal na ko sunu borom àggale. yal na ko sunu borom àggale. ci darajee xaadimu rasul ci darajee xaadimu rasul. ba nga ubbi leen yoon yëpp ba leen yoon bi yëpp. ñë promotion bi fi njëkk a génne. promotion bi fi njëkk a génne. ñu génne ci sa na yal génne ci sa kanam. yàlla mën na ko nee na yàlla mën na ko. ak yeneen i promotion yeneen i yoon wi nag. nee na yoon wi nag. nii rek la deme nee na nii rek la demee de. yoonu ndigal rek la yoonu de ma samba mii nga xam ne moom nga seet si fii tey. nee sëriñ samba mii nga seet si tey fii. mook seriñ Touba. ne moog Serigne Touba. noonu rek la ko defoon nee noonu rek la ko defoon. da koo defoon muy wéy juróom. da koo defoon muy wéy juróom. defoon ko muy magam. defoon ko muy magam. def ko muy seriñam def ko it muy seriñam lépp lu ci cër yooyu. nee na cër yooyu. li muy li muy neex neex. nee li muy neex neex. taalibe gi mu am moo ko gën a neex. nee taalibe am moo ko gën a neex. waaye sëriñ bi liggéeyloo ko moom itam waaye sëriñ bi liggéeyloo ko moom itam liggéeyloo na ko ci wàllu taxaw nee na liggéeyloo na ko ci wàllu taxawu muy laxasaayu muy laxasaayu di ànd di ànd ak ñëpp di ànd ak ñëpp di liggéey di liggéey ay kër ay kër yoo xam ne booba kër gii ñëwagul yooyu boo xam ne kër gii ñëwagul cece yeen cece yeen ak ci yeneen dëkk yëpp ci an yeneen dëkk yëpp sëriñ Massamba liggéey na fi liggéey bu rëy Massamba liggéey na fi liggéey bu rëy ba ci njaareem ba ci njaareem ndekete booba ndekete booba yaa ngi ñëw yaa ngi ñëw ñu di ko liggéeyloo liggéey boo xam ne di ko boo xam ni moo moo boobu moog yooye ñoo yem képp moog yooye ñoo yem képp ci pas-pas ci pas-pas ci ci ci bëgg lu baax ci bëgg lu baax bëgguk taalibe ci bëgguk taalibe noonu la sëñ Massamba doon doxee ne noonu la ma Massamba doon doxee mu liggéeyloo waat ko wàll goo xam ne ne nag mu liggéeyloo ko wàll woo xamante ni moom itam wàllu toog la ne loolu wàllu toog la muy muy xasi xasida yi muy xasida yi lu bari lu génn ci moom. nee lu bari lu génn ci moom. teg tege ci loxoom. tege ci loxoom. mu ne ko ma sàmba. mu ne ko ma sàmba. lu war a génn. lu war a génn. génne ko génne ko. lu war ta génn. lu war ta génn. bu ko génne bu ko génne. kóolute googu la amoon ci moom nee kóolute googu la Serigne Touba amoon ci Serigne Massamba. bëggutoon nag kenn ku dul Serigne Touba. nee Serigne Massamba bëggul woon kenn mbaa lenn ku dul Serigne Touba. soxlawul kër. nee soxlawul kër. soxlawut woon dëkk. soxlawul woon dëkk. soxlawul dara soxlawul dara. ba Serigne bi. ba Serigne bi. yebal ko moom ak sëriñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou. yebal ko moom ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Modou Fadal. ne leen dem leen Touba nekk ma fa. ne leen dem leen Touba nekk ma fa. bu ngeen demee. bu ngeen demee. kenn ku ne. kenn ku ne. na wut kër. na wut kër. waaye na wuti fu muy liggéeyee. na wuti fu muy liggéeyee. bi sëñ Sidi Mokhtar waxee Cheikh Bass mu ñëw wax nu ko. ne bi Cheikh Sidi Mokhtar waxee Cheikh Bassirou mii mu ñëw wax nu ko. danoo ànd ba ci ñoom. ne danoo àndaat ba ci ñoom. ba ci sëriñ Moustapha ba ci sëriñ Moustapha mu yebal nu ci sëñ Maamoor nee mu yebal nu ci sëñ Maamoor mii ñu dem toog fa waxtaane fa yëpp nee ñu dem toog fa waxtaane fa yëpp waxtaane fa nuñ koy liggéeyee nee waxtaane fa nag nuñ koy liggéeyee ak pas-pas buñ ciy am ak pas-pas buñ ciy am ak yéene juñ ciy am ak yéene juñ ciy am ba bañ juboo ci nee bañ juboo ci Cheikh Bass doog a dem. ne Cheikh Serigne Bassirou mii door dem. andil nu plan bi. andil nu plan bi. plan bii ñoo ko defar. ne plan bi ñoo ko defar. andil nu ko. andil nu ko. ñu ñu respecté ko nañ ko bindee woon. ñu respecté ko nañ ko bindee woon. dara manqué wu. dara manqué wu suuf gi. ci suuf gi. li ci dem. li ci dem. ak li dem ci kaw gi ak li dem ci kaw gi. soreewuñu soreewuñu. table baa ngi ci biir ci buntu bi table baa ngi ci buntu bi ku ko gis ku ko gis da nga xam li ci dem ci feer danga xam ne li ci dem ci xeer ak li ci def ci feer ak li ci dem ci feer ak li ci ay feer feer yi gën a kawe yi gën a mag yi gën a kawe te gën a mag am na ci nee am na ci liggéey bi nag ne liggéey bi nag noonu lañ ko toppee ne loolu lañ ko toppee ñu doon ci jëwriñ ñu doon ci jëwriñ sëriñ Fallou doon trésorier bi ko yor ne sëriñ Fallou doon trésorier bi ko yor moom it bëgg na ñu ñaanal ko nee na bëgg na it ñu ñaanal ko ndax ndax ndax lépp lu ñuy dénkaane moom lañ koy dénk lépp lu ñuy dénkaane rek moom lañ koy dénk ci wér gi ci wér gi ak maandu gi ak maandu gi mate na ko sëkk ne mate na ko sëkk sët yi yëpp ne sët yi yëpp biñ defee liggéey boobu biñ defee liggéey boobu bari na ñoo xam ne bari na ñoo xam ni bii ñu koy ubbi lañ fi doog a dox ubbi lañ fi doog dox. ndax am ndax am kóolute. ndax am kóolute ak confiance. ak confiance ci ñi ñu dénk liggéey ci ñi ñu dénk liggéey bi. tey nag ñëpp ñëw nañu. ne tey nag Mbàkke ñëpp ñëw nañu. waaye nag seen loxo. waaye seen loxo. mosu cee jóg ne mosu cee jog de. ndax ni ñu doon liggéeyee. ndax ni ñu doon liggéeyee. at mu ne. at mu ne. danañu laaj. kër yi danañu laaj kër yi. li jëm ci liggéey bi ci liggéey bi. ñu joxe ko ñu joxe ko. ñu liggéey ko ba at ma jeex. ñu liggéey ko ba at ma jeex. ci at mu mujj mii ba ci at mu am nañ juróom benn fukki million. am nañ juróom benn fukki million. mottalee ko liggéey bii mottalee ko liggéey bii. tegaat ca fanweeri million. tegaat ca fanweeri million. Euh, muy muy muy muy muy muy photo yii muy muy muy nag salon yii fi ne. kon sëriñ bi. ne kon daal sëriñ bi. nga ñaanal sët yi. nee nga ñaanal nag sët yi. ba ñu teg seen tànk fi ko seeni wayjur tegoon. ne ba ñu teg seen tànk fi ko seeni way tegoon. te bañ caa soppi dara te bañ caa soppi dara. ci bëgg Serigne Touba ci bëgg Serigne tuuba a gëm ko ak gëm ko. bëgg Seex ma Samba bëgg ma Samba. ak gëm ko ak gëm ko. ñaanal nu ne ñaanal nu ba sax ci loolu ba suñu xol sax ci loolu. dara bañ cee jóge benn yoon dara bañ cee jóge benn yoon. nu ñu ñaanal la. ne ñun tamit ñu ñaanal la. sa fan gudd lool ne gudd lool. li nga yéene lépp nga def ko li nga yéene lépp nga def ko. ba mu mat sëkk ba mu mat sëkk. dara bañ caa manqué dara bañ caa manqué. xam nañu sa pasteef mais xam nañu nag sa pasteef. ak sa yéene ak sa yéene. wóor nañu ne. ne wóor nañu ni. su ko sunu borom dogalee su ko sunu borom dogalee. kenn ku ne da nga am da nga ne kenn ku nekk ci ñun ñii di nga am loo bëgg ndax ndax ndax ku ne yéene nga ko la mu am ndax ku ne yéene nga ko la mu am taalibe bu ne yéene nga ko mu am lu dul jeex ne taalibe bu nekk yéene nga ko mu am lu dul jeex kon ñaanal leen ko rek ne kon ñaanal leen ko rek ba loo song ba loo song rek ñu mën koo daaneel ñu mën koo daaneel ñu ngi lay sant bu baax nee daal ñu ngi lay sant bu baax a baax Euh, màggal gii ñëw it nee na màggal gii ñëw it ci yàlla defal ndam nee na yal la ci yàlla defal ndam ndam lu rëy ndam lu rëy loo xam ne loo xam ni dana ci jóge dana ci jóge xam kan ay sëñ xam kan mooy sëñ Touba ndox te wóor nañu ne te wóor nañu ni dana am waaw sëriñ mu ne mi ngi nuyu sëriñ Mamor mu jottali ko nuyoom boobu sëriñ Moustapha ak bokki taalibe yi fi teew yëpp ak bokk yi fi teew yëpp te ñu àndoon ak moom ñu bokkoon liggéey bi ak bokki taalibe yi mu daanaka kàddu yi sëñ Seex xawee su jéem mën a jéem a dolli dara ñépp dégg nañ ko te leer na nañ mat na sëkk nee na bi dara des yi nee dégg nañ ko ci nopp yi dégg nañ ko ci xol yi nee na kon mënuñu cee dolli dara xanaa rek kay jataay bii ak bis bii am na ci mbégte mu rëy ndax yéene ji mu yéene njabootum Cheikh sàmba gi ko liggéey nee na ni mu ci amee mu rëy fekk na yéene ju rëy moo ko jif yéene leen jëf ji lool nee na xolam sedd ji guy yaakaaram dolli ko ci xelam gën a dal nee na moom nee na ñu tudd ko rek mu dégg ko ci noppam nee na doy na ko mbégte nena na loolu na ci lu jiitu jotaay bi mu defalon ko bisu bopam lepp don ko dugal ci bi Serigne Touba nena lolou jitu won na te noonu bobu kilifa ma ngi bi waye manatu ko wona muñ nena mën to na ñak feñal nak digënté mak sama sama loolu moo tax mu defaloon ko bis boobu bu mu ko defaloon. nee na kon waxi sëñ seex ji. kaddu yi sëñ seex yi. jërul dolli dara. xanaa dolli cant ak ngërëm rek. di seereel sëriñ Moustapha mi jiite kër gi ak doom yi ak rakk yi ko àndal ak bokki taalibe yi nee na mi ngi leen di seeral ne mi ngi leen di sant di leen gërëm di ko seeral rek Serigne Touba mi borom di leen seeral ne itam ñun ñëpp ñoom ñëpp nee na mi ngi leen di seereel yeesal gu muy yeesal jaayanteem ak Serigne Touba di leen gën a seereel fas yéene fàttali ak laxasaayam gën ko ànd ak yéen dàkk ci jaamu yàlla. sax dàkk ci jaamu yàlla. ak liggéeyal sëriñ bi. na ma koy waxee na moom nag ni mu koy waxee. sax dàkk ci jaamu yàlla. dañuy sax dàkk ci jaamu yàlla. liggéeyal sëriñ bi. nee moom foofu rek la nekk. nee na mi ngi leen koy seeral yéen ñëpp. jërë ngeen jëf. nee na cant daa mënta weesu sant waaye kon dana ko weesu. nee na xolam sedd na guy. sëriñ Basiiru nee na Cheikh Massamba na ma ko waxee woon keroog. sëriñ bi na li mu doon ci sëriñ bi dafa bari. nee day rakkam. di doomam. di ab taalibeem. nee jël léppam jeexal ko ci sëriñ bi. nee na seeyal léppam ci sëriñ bi. jërëjëf Mamor Mamor. nee na loolu moom la sëriñ Cheikh mi wax. saal bi la ñuy maye. nee moo tax sëriñ bi julli sëñ bi day julli. kon borom yi yëpp dañuy jàll ci liggéey bu toll nii fa ca des. ak mas neef ak ci Cheikh Massamba. dañuy dem ñii bu sëñ Bass nappe bu sëñ Bass nappe. caméraman yi ñëpp ñu dem ci beneen sàmm ñu laal fii sëñ bi day julli. nee ba nee na santal boppam Serigne Moustapha ak Serigne Mamor ak seeni rak ak seeni doom yëpp ne kon loolu nee li Serigne bi wax yóbbaale na lépp nee na ndigal daal des koo mënta ñàkk a jëfe waaye nu jeexale foofu kaddu gi nee di ñaanal nag Serigne bi mu yàgg fi lool nee na ñaanal Serigne Moustapha itam ne mu yàgg fi lool ne ñu ànd ñu yàgg ànd liggéeyal Sëñ Touba te daje ceeg tawfeexi Sëñ Touba wasalaam